شماتا أعطاني الباخي الكتاب الأعظما ولا ألاخي كل من تعزما عني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يسأل خالدا نفعني بالمصطفى المصفع عليتني ما نفعا الأنفعين daa xilaamiya ilaa sukuuri man saqara lil xalqa baqa izaaman rabbiya maaliki xaliili wal xabiib waqad maa anniya daa'iya tabiib barra'anii min kulli aybin wa maraad wa xaadali sixata fi kulli araad baritu min uyubi nafsi biltija illa allazi abwaabuhu lam turtaja huwa alkarimu alakramu almukarrimu waliya minhu la yarimu alkaramu muhammadun wasilati wa junnati an kulli soo'in waasan wa jannati yanqaadu minni salaamu an sala lahu bi alihi wa afdalil mala rasuluna ahmadu kulli ala alayhi xayru salawatil ala suntu lahu abkaar am daahin la daa من جيلوسني وسف الخلدا قلبي سفى بكون ربي خلي حبي ولي جعل كسرا خلي وجه لي حلاوة الدارين وفيما جعلني جارين نفعني فيما مدى وما اختفى wa kawnu li bi munaaya maxtafa nafaani bi ma badaa maxtafa wa kawnu li bi munaaya maxtafa faritu billahi alkarimi wa rasul wa xisbi wa xustu minhu xay rasul ribimti daaw man bi baaxi dafa أسن توجه إلي فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تأتيني المنى والحكم يقود للخبير والعليم ما دونه العلوم والتعليم nafal xabiiru an fuaadi jahla sirtu bi li basi ilmin ahla bara anil alimu min dalali fa surtu muxsitan bila ixlaali bara anil alimu min dalali fa surtu muxsitan bila ixlaali mahal hakimu ma tara kulliyati min albalaya aqbalat hadiyati ilayya aqbalat hadiyatul karim wa kullu ma kuntu min allahi arum ayatu munzilil kitabi nuzuli wa innani anil azabi ma'zili assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di siyaare yéen mbokki taalib yi fi daje yëpp di leen jottali ak cant di leen jottali ay ngërëm ci sëriñ Cheikh Saliou mi nga xam mooy ne ci barab bi tey ji ci jiital nag ci cant ji sëriñ Saliou mi sañc barab bi muy lagan lagan moom mi ko sañc nga xam ne moom koy sañc susaan deme naa susaan sees la susaan sees lañ sañc lagan Ah, ci ndigalul sëñ Abdou Lahat nun ñii ci ñi fi jiitu ci sanc bi ci lañ bokk boobu defe naa ne sanc bu njëkk ba ñeenti baraag la fi sëñ bi njëkk a def ñoo fi njëkk a nawet ginnaaw bi la fi sëñ bi dikk kër gii ñu ne tey jii di këram gi sanc bu njëkk boobee nag ku ñuy wax euh, euh, euh, Cheikh Diop Maraj moo fa njëkk a noddu ca sanc bu njëkk ba ko sëñ bi sancee sanc bu njëkk mi ngi mi ngi sowu kër gii ñu ne tey jii sanc bu njëkk bi moo ko sowu ñeenti baraaga fa ne woon ku ñuy wax Cheikh Diop moo fa njëkk a nodd sanc bii nga xam ne sëñ bee ko rëddal boppam booba jàkk ji amagul nag fi jàkk ji waroon na ne bañ waree nodd Modou si la woo ni ko nang ki njëkk a nodd waaw fii nga xam ne nag mooy lagan ci ñi fi jiitu ci laa bokk ndax sëñ Saliou si rahimullahi moo doon jëwriñ ji ak sëriñ Moustapha Diaw ca sanc bi sanc bu njëkk ba nun ñu bokk ci jiw euh, gone yi nga xam ne ñoo toppoon ci jëwriñ yi li nga xam ne nag bi sanc bi amee nun ñi ci ñi fi sëñ bi njëkk jiital la yorloo ñu kër gi ci la lañ bokk nga xam ne fii ñu toog tey ci kër gi nga xam ne moom la sëñ Cheikh defaraat ba mel nii mu mel ci bant njowaan yi toog man Saliou Ndiaye Touba bii maa ko fi sampal sëñ Saliou ba ba bant yi ba nëgë ñu toog tey maa ko fi sampoon ba nëgë ni ma bant fi fii la sëñ bi daa toogit nun ñii nga xam ñooy fukki fukki jëwriñ yi fi mujjoon te ne fi ci 85 fii la ñu sëñ bi yiwee nun fukki jëwriñ yaa ñaar wooñu bi màggal gi jub si mënuñu yéen de seenub liggéey daa àgg dama bëgg buñ demee ba ci bisum màggal ga dinaa yebal si woto bu jël si seen i bagages andi leen ngeen dellu ci kër ya yàlla dogalul loolu ba yàggal ba nga xamee ne màggal nañ ba noppi nag sëñ bi daa daa di ba màggal ga eh, jàllee ba am ñaari fañ sëñ bi daa del si nii xanaa de la ma leen waxoon dana leen jaaxal ñu ne ko ah, waaw Mbàkke mu ni waaye nag nun de duñ ci jaaxle ndax loo wax rek noonu la war a demee mu ni nag daa am loo xam ni sëñ son yi ba damaa gone ca sowu ba ma bëgg leen indi ci penk bi bëgg yéen ñii ma yiwi tey la defoon ci yéen ma roya ma ma ma indi fi ñooñu bu doon tem atit mu ñooñee loola mën a royaat ci ñoom ngeen door a dem yàlla dogal ba loola amee ba at ma mag muy ñoom sëñ aboo gi ñii ba at ma mu yóbbu leen judul indi sëñ tay ba sekk ak ña fa newoon ñooñan ñii dama bëgg ngeen am feek ñoom diir ndax ngeen soppil ma leen bañ tegu ca yoon wa ñooñu am nañ am nañ feek ñoom ñetti at ba ñetti at ya matee nag la door a yiwi juróom-ñeent ya bàyyi ma fi man sa man ak Saliou Sow ak Mandoy Sarr ni ñu kër mag dafa mënta ñàkk lii mooy li ñu fi indi loolat ca lañ ne ba ba ba ba ni fi sëñ bi jóge ñoo ngank daara yi yor ko ba loola jàlleet ca ca ca ca eh, bi fi sëñ bi jógee noonu dañ fee toogaat ak sëñ Cheikh gunge ko gunge naa ko ba 83 93 eh, ma mu door maa yiwi bis bis ba ma yiwit fii la ma yiweewaat wax ma ne eh, wolof de nee na gunge ak gënu ca kon nag dama gunge ngeen ñu li ngeen ñu war a gunge kon nag léegi li ci des mooy dama bëgg ngeen dellu ci kër gi tey baagante yi dama ko ñëw ndax kër gi seen kër ma ne ko ah, yëf yi de daa mel ni dafa nuroo ndax fii la ma sëñ bi yiwee woon fi ma yiwee waat kon daa mel ni mbir mi benn la. Ah, ah, barab bi sëñ bi da koo fonkoon lool ndax nee na la taxoon ma fonk ko mooy sëñ Touba dafa waxoon sëñ Issa ko demal lagan ma fekk la fa ak lëggën yàlla dogal ñuy dox di dox ba ab jëmmi jamono yoo xam booba njàpp ndal nañ ne am pël bu ñuy wax Mamadou Ngari dikk fa ni ko de man de am naa suuf ca lagan soo xam ni boo yónnee woon dinaa la ko jox sëñ bi ni ko ah loolu kay duma ci du ci teg dara damay daal di yónnee daal di yónni Moustapha Diaw ak sëñ Saliou si ñu wër si ko muy Mamadou Ngari moo njëkk joxe suuf ci lagan gii ba mu jàllee ku ñuy wax euh, euh, euh, ajjuma coro tegu ca ñu bari lañ ak sëñ Bay Bousso lim ba dama ko dun mën a takk waaye nag fonkeel ga loole mooy cosaan li mooy la sëñ Tuubaa waxoon sëñ Isaa demal lagan ma fekk la li gën sëñ Isaa yàlla dogal na ba mu ñëwee lagan fii la njëkk a dal yàllaa ko dogal mu fekk fi say ay sàmm sàmm yi ni ko fii ba mbar lagan la daal koy wax ni ko may ñi wurum sëñ Musaa may leen ma wurum ba fee mu dëkke tey ca njenne muy wurumam waaye fekk guy gi taxoon ñu daa wax lagan dëgg dëgg dëgg eh, bi sëñ bi sañ sampee kër gi nee na guy ga de fa mu nekk ak ku ñu kërug euh, sow bi ku ko nattoon yaakaar ne juróomi téeméeri mètre yi la may manqué du bari waaye loole ba mu ko waxee dem naa ba diir bi ma fi nekkee sëñ Cheikh nattal naa ko saa bopp ba ko nattee juróomi euh, ñeenti téeméeri mètre mètre la ak juróom ñett fukk ak ñaar kon la waxoon euh, wér na. dafa dogal sëriñ bi fu mu nekk. dañ fay dem di ko siyaare ndax mooy sunu mooy sunu mooy sunu dund mooy sunu ci moom lañuy la ñuy euh, dekkale suñuy xol. benn benn bis ma fekk ko fii siyaare ko ba noppi maag ña ma àndaloon mën nañu yéen ñi ndax kenn mas na cee nekk ci daara yi ma ne ko déedéet ñun de mosuñ fee nekk waaye man de daara yi lagan la euh, daara yi ndookaa laa nekkoon. waaye bi ñuy sañ ci daara ji de sañ bu mujj bi nga xam ni ko sëñ Sall ñaay waxee kër gi bi ko sëñ bi sa euh, ba ñuy tabax tabax yi xëyee ne ndookaa ne ma nañ dem ñu ànd ci oto bi biñ dikkee Euh, mu woo ba waxtu tisbaar di bëgg a jot mu woo ma ma ñëw mu ne ma waxtu di tey ci ci benn waxtu bu tegal nangam minute maanaam une heure yu tegal nangam minute lay doon jàkka nag amagu fi waaye fañ naal jàkka suñ cee eggee na nga fa dem taxaw nodd ma ne lii de jaar naa fi sëñ bi te sante boobu jàkk ji ñu ngi koy tabax mu sori lool sëñ Cheikh daal di joxañ ne ma kon di jiitam saa bu eggee na fi njëkk a nodd ci la waxee sëñ Xalil ne ko euh, na nga ma jàppale bu ci eggee nga woo ko mu ñëw mu ñëw loolu moo ma tax ñëw tey jii ganaabu bu loolu wéy itam ñi ngi xam la ne sëñ seex sànq rek maa ngi koy wax ne bu amoon kenn koo xam ne dañ ne àdduna tey jii am na koo xam ne dafay war a des di dund di wéy ñu di ko ñu di ko ñu di ko ñu di ko wate sëñ seex mooy gañe ndax njëriñam saayir la ak baatin te ñëpp teg nañ ci bët euh, li waral loolu mooy moom lëg yëpp sëñ Saliou dafa continuer di ko jëmale kanam lu ci nëbbu woon lu ci lu ci doon nirul lu nëbbu feeñal na ko ndax mooy yëngu bi nga xam ne dongo yi tarbiya ñu ngi koy def te àdduna bépp teg seen bët barki démb damaa seetaan image boo xamante ni damaa sama xol dafa sedd guy ndax jenn jigéen laa gis ci ñii sëñ Abdou Ndiaye daa àndal dem sa di sant ne ko yéen yéen tax mboolem ku nekk Ndakaar tey bu sañoon doom dem ci daara bi leen sëñ Saliou noppee ci yéen ni ngeen mel moo tax ñëpp xemam dongam daara salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Cheikh ñu leen di siyaare bu baax a baax di siyaare sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou Mbacke buñ ko siyaaree siyaare nañ Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xamante ne nii moo jiite yoon wi di siyaare tamit suñu jëwriñ ñii nga xamante ne ni fekk nañu leen ci jataay bi muy sëriñ Mahamadou Simi yi nga xamante ne nii képp ku ko xam xam na ko ci liggéeyab sëriñ bi ceeg ndaw ba ceeg mag sëriñ Saliou Ndiaye mii naka noonu nga xamante ne nii moom it képp ku ko xam. ci sëriñ bi nga ko xam mës a génn loxoom benn yoon ci ndaw ba ci mag bu ñu leen fekkee ci jataay bi bu ñu leen nuyoo mel na ne nuyu nañ mbokki taalibe yi ñu fekk yëpp di nuyu sëñ Fallou Galass Sylla ak mbokk yi fi teew yëpp sëriñ Saliou de moom yaakaar naa li sëñ Modou siy wax suñ mbokki taalibe yi wax ko daanaka xawoon nañ cee mën a yem xanaa dañuy dañuy dañuy dañuy barkeelu rek ndax sëriñ bi moom bu ñu laajee ak mu jëm. moom day mel ni ak mujjam ak njaalbeenam daanaka benn la rek maanaam ndax lam jëgtee woon ca ba mu gën a féete tànk ba bis biñ koy mujje gis xanaa bu fi lu fi soppeeku xanaa bijaaw lay doon bijaaw bu weex waaye amul amul amutuk soppeeku naka jekk li muy wut mooy yàlla di ko wut ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa di ko wut tamit ci xeeñtu waaye juróom wu tedd ba sëriñam bu tedd ba sëriñ Touba loolu moom képp kuy seere sëriñ Saliou xam na ne loolu ci loolu la ma sa nekk lépp lu baax it mosu cee xeeb dara ndax moonam moom doom gi mu doon doomi sëriñ Touba ak mbokk gi nga xamante ne ni ay waaye juróom fa leen sëriñ bi tànnee lépp bu amutoon jóge sax. doon ab doxanteem ci réew mi li mu jëfal lislaam rek war na ko may lii mu am nga xam ne liggéey boppam la ndax koo xamante ne sa doole sa alal sag yëngu sa dal lépp ci luy jëmee diine ak luy defar doomu aadama ak di leen yërëm ci nga ko nekk te loolu kenn ku nekk mën na koo seere sëriñ bi nag moom ak mu jëm ni ma ko waxee rek maanaam lépp li nga xamante ne nii moom la doon liggéey njëkk muy nekk Serigne Touba nga xamante ne lu mu a am jox na ko ay magam lu mu a liggéey jox na ko ay magam di déglu ndigal mës sa joxe ndigal ba nga xamante ni nag ci kattanu suñu borom ak ndimbalal sëriñ bi liggéey bi egsi na ciy loxoom mu doon Serigne Touba la sëñ bi gën a bëgg la ko defal ndax sëñ bi moom daf ne woon damaa ñëw ngir yeesal sunna si yonente bi sallallahu wa sallam yoonu tërbiya mooy yoon wi nga xamante ne nii moo gën a gaaw ci am ngërëmal suñu borom sëñ bi mu ñëwee loolu la yeesal naka jekk nag ab liggéeyam la woon waaye nag ba mu doonee sëñ Tuubaa nag da koo yaatal jël rajo bi woo mbooloo mi woo taalibe yi soññi leen ci ñi indi njaboot yi ngir mu def ci ñoom yoonu tarbiya ba li sëñ mët si wax léegi résultat bi mu ci am moom la sëñ mot si doon wax léegi ne mm, dafoo def ab jël lam seetaan soxna soosee wax ko ne maanaam yéen de ni ngeen mel tax na ñëpp gën a bëgg jàng alxuraan loolu kon mooy résultat boobu waaye tamit nag li sëñ bi gën a bëgg muy alxuraan ak xasida kenn kenn ku nekk gis na ni mu koy yeesale jàng alxuraan de yàgg na fi ami donga tamit yàgg na fi waaye nag yor lu mat fukki junniy donga di leen jàngal di leen dundal di leen faj di leen ngénteel di leen takkale soxna loolu moom yaakaar naa ko mas a dégg tamit ah xanaa sa dégg sori de waaye bët moom tegeegu bët bët tegeegu ci kon kenn ku ne xam na ne kon yeesal na alxuraan al karim xaside nag moom li mu ci def kenn ku ne moom mat na ki seere sëñ bi bi muy laataa ñëw fi mu fekkoon xaside yi ak ni mu soññe taalibe yi ci njàngum xasida ak bëgg ko ak fonk ko ak résultat bi mu ci am nga xamante ne nii léegi jàng xasida duñ ne duñ ne kuréelu waa Kër Sëñ Saaliw wala kuréelu waa ko sëñ Massamba waaye boo demee Sacré boo demee Mbaaw boo demee Rissa Toll boo demee Ziguinchor fenn fu nekk kuréel gu jàng nga defee ne ñii kuréelu waa ko sëñ Saliou lañ wala kuréelu waa sëñ sëñ Massamba lañ loolu moom sañ bee ko yeesal ci yoon wi kon boo kenn ku ne xam na ne moom ak njaal beenam ba ci mujjëm dundal lislaam dundal yoonu sëriñ Tuubaa rek ki la nekkoon diggante sëriñ Saliou ak sëriñ Cheikh nag moom day mel ni la sëñ Moussa Ka waxoon ne noobal bu dem ca xeex ba noobal bu engagé ca ca ca ca ca ba nuroo wut ak civil keroog payoor ba sëñ Cheikh moom ginnaaw bi mu doonee doomi sëñ Saliou daa ko teg fële laxasaayu doonub dong di liggéey guddeeg bëccëg di sàkku ngërëmal sëriñ bi li nga xamante ne rek saa sa suñ mën a wax rek ñëpp gis ko añub sëñ Cheikh moom sëñ Saliou kenn ku ne min na ko ko sëñ Saliou moo xam ne du jël du nawet du sedd du tàngaay du xat-xati jamono dara añub sëñ seexub sëñ Saliou bii bi seen mu ñëw te añ bookat bu ñëwee sëñ bi ñëm gën a fonk la koy jox buñ ko noppee mën nañ koo joxaat ñëm gën a fonk bu ñu noppee ñu joxaat ko waa kër ga te du jeex loolu kenn ku ne xam na liggéey bu rëy la waaye yemut ci loolu maanaam lépp loo xamante ne nii sëñ Saliou day moom maa wax mu dégg mu ne sëñ Saliou day sëñ Cheikh day mus ta nekk ci loo xamante ni du sama ndigal mus musta nekk tamit ci loo xamante ne nii bu ma ko déggee am naa ki dara loo xamante ne nii am na ki lu may xebet leneen li ci xew tamit mooy tabaski gi nga xamante ne nii sëñ Saliou moom la mujj tabaski nga xam ne àjjuma jéeg tabaskee ca bis ba dellusee see ca la def suñu borom def caawareem ci moom sëñ Cheikh Saliou li may wax nii mbooloo laa àndal dafa ñëw di ko siyaare bi mu ko siyaaree ba noppi. mbooloo mi toog sëriñ Saaliwu mën naa mag fekkewu ma ko daaw ma gis day lu muy lu muy sant sëñ Seex ak di ko gërëm ci biiri mbooloo waaye keroog maa nga toog ca ruq ba mu daan nuyoo di naan kafe mu am kum yabal ne ko na ma woo ma ñëw mu woo ma mu ñëw mu ne ma damaa bëggan day mbooloo mi teew nga jotal ma ay kàddu yu cant ak ay seere ak sëñ Seex mii li may wax nii sëñ Cheikh bu ko déggee moom fekke na ko ma nga moom moom kàddu yi ci moom la jëmoon sëñ bi na ma damaa bëgg nga xam nga xamal ma mbooloo bi ne leen sëñ Cheikh mii dama koo sant bu baax gërëm ko bu baax tey lépp lu am ak lépp lum liggéey jox na ma ko tey noppal na ma tey lépp loo xamante ne nii waral na ma ci biti ma toog fii mënuma ko loola ma nga ca tey it maanaam damaa bëgg mbooloo mépp teg seere ne gërëm naa ko sant naa ko maanaam kaddu googee bis bi bi mu dellusee la sëñ Seex doon sëñ Saaliw kon nag loolu moom li ñuy li ñuy wax maanaam euh, transmettre la pouvoir maanaam jox ko jox ko jox ko liggéey bi waaye yaakaar naa ba mu ko joxee tamit kenn mu ci gàcce ndax sëñ sa wuutu sëñ Saaliw ñëpp dañoo fooga ne yëfi day wàññeeku waaye yokk moom fooguñ ko woon nag dañoo fooga ne kay sëñ Seex mën naa góor góorgóorlu nag ba téye li fi sëñ bi bàyyi woon waaye nag góorgóorlu ba téye ko ba daara joo dem nag mu yokk fa ay daara yokk tool yi yokk liggéey bi loolu nag moom kenn xalaatu ko woon nag moom nañu waxante dëgg rek waaye nag kon boog alhamdulilahi rabil alamina sëñ bi teg na ko fa mu war a teg waagal na ko na mu war a waagal waaye nag fekk na moom it nag mu waagalan boppam ngir mën a yor yan bi fekk na tamit mu waagalan boppam ci jikkoom ju rafet ak nangoo jaamu yàlla nangoo sonn ki doomu aadama yi ba nga xamante ne yan boobu ba mu ñëwee na tooy ci moom kon boog bu ñu dajee fii nag di jumaa ji nga xamante ne ni mooy jumaay Lagan ni ko sëñ Modou si waxee Lagane moom doon suñu suñ suñu dëkk ñu ñëw fi ba tàyyi ànd ak sëriñ bi daara ji tamit bokkan ci daara yi nga xam ne sëñ bi dama koo dénkoon ma ñëw fi di gëstu njàng mi ak di toppatoo jàngalekat yi ak di toppatoo jëwriñ yi kon su ngeen ma ki joxee kàddu sant naa leen bu baax gërëm naa leen di sant tamit sëriñ Samuel Sarr mi nga xamante ne nii sëñ seex sëñ Saliou da koo defoon way juróom def ko ab taalibeem waaye ginnaaw sëñ Saliou tamit loolu lépp mu yeesal ko ci sëriñ Cheikh ndax mënoon naa wax ne am naa ngërëmal sëriñ Saliou kat daanaka nii damay ñëw di di di di siyaare rek waaye dafa laxasaayuwaat gën a takk feddaliku nekk ci ginnaaw sëñ Cheikh di déglu ndigalam fu sëñ Cheikh xool rek mu fay xool ba sëñ Cheikh jël daara jii daara lagan def ko jëwriñ ji nga xamante ni bu nguum mi ñëwee moom la koy teg ci loxoom jumaa ji tamit mu jox ko ndigal mu taxaw ko taxawaay bu rafet bii def ci yéene def ci pasteef ba suñ borom dimbali ko ci barkeb sëriñam sëñ Saliou ak barkeb sëriñam sëñ Cheikh Saliou bañ koy ubbi tey loolu nag suñu borom fay gi mu ci liggéey ci ku liggéey néegub yàlla yàlla na ko ci fay te boole ñu ko te yéen ñëpp tamit suñu borom boole ñu ci biir ndimbala sëriñ bi ak tawféexe sëriñ bi. njabootu sëriñ Saliou képp ñoo fi teew ñuy tàmbalee ci sëriñ Saliou Ndiaye mi nga xam ne moo yoroon ñaaru sëriñ bi dénkoon ko ko ak sëriñ Mutsi mi nga xam ne taxawaayam ci wetu sëriñ Saliou bokkoon ci jëwriñam yi moom it jiite daara yu bari ñuy daara ji ñu ci tudd rek. muy daaray Nat Bu Lamin euh, mu nekkoon jëwriñ ji euh, ñu dand ak Serigne Souhaïbou Cissé mi nga xam ne di doom ci Serigne Moyo Mbaye Cissé Serigne Saliou am fu mu ko tegoon jox ko cër boo xamante bi cëru waajuram ya képp la doon dabu ci moom muy Serigne Mor Mbaye waaye nag mu am cëru boppam ci Serigne bi cër boobu mooy sëriñ bi jëloon léppam loo xamante bii jëm na ci euh, lu dox ci digganteem ak taalibe yi mu doxalee ko ci ñu feggoog moom di am ñëw teew fii ci daara yi Lagan ji nga xam ne euh, Lagan moom bu ñu ko waxee rek xel yi dem ci sëriñ Saliou ndax sëriñ bi daara yi bëri na daara lool mën naa ne daara yi moom fu ne sëñ bi samp na fay daara xel koom euh, daara yi fi sëriñ bi bàyyi di fukki daara ak juróom daara yi nga xam ne ñoo ci ëppoon nit ñu fa nekk daara ci nekk ñett téeméeri nit ak lu topp nekk fa sëriñ bi war loolu leen lépp daawuñ jéegaani dara euh, sëriñ bi. dafa samp bi nag bi mu sampee daara yi ba pare yoral leen ab dund yoral leen ay dàll yoral leen ay yére yoral leen am paj yorol leen war loog lépp loo xamante bi warloo naag euh, donga ci daara rek sëriñ bi defal na ko ay dongaam sëriñ Saliou Mbacke euh, ba tax na euh, ay dongaam mosuñoo jégaani dara fañ toog lañ daan toog lépp di leen fa fekk si taxawaay boobu sëriñ Saliou def na ko ci daara li mu def ci daara def ko ci alxuraan moom sëriñ Saliou Mbacke ay junni junni doomu aadama jugee ci moom defaru euh, ci alxuraan defaru ci tarbiya defaru ci lu baax tas ci àdduna bi ñooñee kenn ku ci nekk tey royuwaay nga jataay bii firndeel na ko boo xoolee jëmm yu tedd yi nga xam ne ñooy suñuy jëw di suñu lépp ñu feggoog ñoom euh, loolu ab tegtal la ci tey it nag fu Serigne Saliou yar nekkul loo xam ne da war a taxaw naan Serigne bee ma yar di ko wax loolu loo lu war a nekk ci yow la ba ku gis euh, laajte ko ñu xamal ko ko waaye yow loo xam ne danga da ngaa war a wër di ko wax ndax ci saw doxin daa war a wane doxinu sëriñ bi sa jëfin daa war a wane jëfinu sëriñ bi loolu lépp euh, maanaam euh, day firndeel ne euh, taxaw naan sëriñ bee ma yar sëriñ bee ma yar moom koy wax rek sab des na sa tarbiya des na ndax buñ la yaree tarbiya la def li nga xam ne ab sëriñ def na ko ci dongaam loolu luy feeñ ci yow lay doon luy ne ci yow lay doon waaye nekkul lu ñu war a wax ñuy am mbégte bu baax ñëw teew ci liggéey bii nga xam ne Samuel Ahmed Sarr da koo defal Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou te tàmbalee ko ci Serigne Saliou nga Samuel digganteem ak Serigne bi day diggante bu yàgg Serigne Saliou jël ko am fum ko teg def ko doomi boppam def ko taalibe di wéet ak moom waxtu wu nekk euh, ñuy waxtaan waxtaan yu baree baree bare ñoom ñaar ci lu jëm ci euh, Samuel lu yokk taalibeem moom Samuel da ko daan sàpp ci sëriñ bi ndax daan dàkk bëgg-bëgg sëriñ bi bokk na ci. bi ko sëriñ bi yebalee lagan ndax sëriñ bi ku ne xam na ne euh, léppam moo ko doon saytul boppam euh, mbiram kenn sañu ci war a dugg koo xam ne dugalu la ci ba daara ji Samuel sëriñ Saliou jël ko yebal ko fi mu ñëw saytu ko bi mu ñëwee xool ko courant bii ngeen gis tey muy rotation bu mag bii dugg ci biir tool yi Samuel Ahmed saar moo ko fi defal sëriñ bi ci nekk ci nekkam fi sëriñ bi békki lool ba nga xam ne ñaan googu rek doyoon na ci diggante taalibe ak sëriñam muy courant bii nga xam ne moo dugg si daara lagan tey ba tund yëpp di ci bénéficié wu Samuel Ahmed Sarr moo ko defal sëriñ Saliou Mbacke Samuel jër daara Lagane ginnaaw bi ko sëriñ bi dénkee féete ko féete bu wér a wér waaw Lagane de ñëw naa fi ay yoon yoon ndax man yàlla moo ma bëggloo sëriñ Saliou ba ma nekkee tuuti tànk laa tàmbali dem si sëriñ bi boobu soo daan ñëw si kër gi moo daan njiite timis ak gee su ma jullee si moom timis ak gee suñu paree mu jox na ay xéwal fi nekk fekk naa fa sëriñ bi lagan gi ñëw naa fi ay yoon yoon waaye nag ñëw bi ñëw naa ngir taalibe ñëw naa ngir bëgg sëñ saaliw ba néew na bés boo xam ni jóge naa man ma di ko yeewu naa ba tëdd ci lalta jox ma àddiya sëñ Saliou waaye nag ñëw naa fi aussi ngir sama rakk ji nga xam ne sëñ Saliou daf ma ko dénkoon di Samuel Samuel sëñ Saliou moo boole bi yàlla defee ñu arrêté ko ci mbirum yëngatu yëngatu yooyu xewoon si wàllu politik am ku ñëw ni ma ci mbokkam ni ma dama bëgg nga layool ka ma ni ko kon may ma ma dem waxtaan ak moom ba pare bi ma ñëwee fekk si biir kaso bi génne lu ko ni ñëwal ñu waxtaan ma ni ko dama bëgg nga leeral ma su digganteeg sa boroom liñ lay tuumaal noo def ak moom mu dindi si baat bi ndomba loo xam ni daf ko takk muy sëñ Saal ma barke jëmm ji te toujours mi ngi koy takk du teqli koog moom mukk sole solee mi ngi koy takk su kolee yor na barke jëmm ji doonuma si dara dan ma tooñ rek ma ne ko kon tey am nga avocat ñu ñëwati sëriñ bi boole nu sëriñ bi boole nu jël sama loxo teg ci loxoom bi nu gisatul sëñ Saaliwu amul yàggul rek xëy na ñaar wala ñetti at bésu màggal bésu màggal gi nekk ñooy bokk sukkandoo si sëñ Cheikh sëñ Cheikh ni ma ah yéen daal yéen ñaar ñii su ngeen àndee dana neex lool boroom kër gi moo tax léegi laa koy wax ni que ñun kat sëñ Touba la yaakaar. bëggandoo sëñ saaliwu bëgg suñu biir xol di ko noyyee li wóor te wóor mooy li noo teqale mooy wujj sunu borom rek te yàlla na yéex te mu def fi nag lu am solo nguub bi la jëkke gannaaw nguub bi mu song tey jumaa ji kon lii ndamu lislaam bi yépp la ndamu yoonu murid la waaye nag kan moo moom ndam loolu kan moo man moo man tax ba ndam loolu am mooy Serigne Cheikh man sëñ Cheikh ba ma gisatul sëñ saaliwu dama ko wax ni que yaay sama Serigne Saliou na ma daan dawe ak na ma daan am mbégte pour gis sëñ Saliou su ma fa jógee bég duma ko nangu teqalikook moom noonu laa mel si Serigne Cheikh te jëmm jooju kat sagal na lislaam bi sagal na yoonu murit soo gisee jumaa yi mu tabax ba yàlla def ko sa biir ndakaaru ndakaaru googu nga xam ni sëñ Tuubaa li nekk dañ na ko fa Masaalikul Jinaan di tontu li nga xam ni moom la yàlla def mu am moom moo tëllam ci tontu yi dem sa almaadi sa almaadi mu tabax fa jumaa joo xam ne ñun ñëpp fa la noo julee ci kon sëriñ Cheikh mi ngi ci tànku sëñ Saaliw foo toll te nag boolewul dara bi wane ni man la déedéet suy woote sax bañ na buy ba suy woote bés yu mel nii du fa jege sax akramani alkarim wal mukarrim bi jaay man sumaatoor mukarram li xaada yumnul Mustafa ma xaada bilaasan murtadiyan fan xaada li xaada ma yakunu li surura an yuzkara fiha ismu masajidallaahi la wax jàkkay yàlla yi loolu lépp rek ak yeneen barab yoo xam ne sunu borom day jël turam wu sell dendale ko turu turu jàkk muy firndeel rek ba tey solo soo xam ne jàkk am na ko waaye ba tey ci solo si xam nañ ne gëm yàlla lu am solo la waaye lu biire la ndax mbirum xol la neexuta xam ci doomu aadama bi waaye sang ba sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon jàkkade mën nañ koo jàppe am nattuwaay ci gëm yàlla doomu aadama bi nga xam ne képp koo xam ne gis ngeen ko muy baagante jàkka rekk na ngeen ko seereel ak ngëm ida raaytumu rajula yaataadu almasjida fashhadu lahu bil iman ku ngeen gis muy baagante jàkka walla xolam wékku ci jàkka na ngeen xam ne kooku ku gëm yàlla la waaye jàkka ku ne xam na ne barab la boo xam ne lañ fay def ci lijjanti ak yéwénal mbiri doomu aadama yi ëpp na rek julli kese yonent bi sallallahu alayhi wa ca jàkkaam ja woon ca Madina ca la daan lijjanti lépp lu mu daan lijjanti su fekkoon dañuy wax ne moom dafa yoroon lu mel ne ab état fi mu doon gouverner wala fi mu doon doxale mbiri état ba moo doon doonoon ca jàkkam jooja nga xam ne lépp fa lañ koy lijjante kon ñu xam ne jàkk wàccuwaayam ci lislaam mënta ñàkk ci dunduk doomu aadama ndax lam fay def ci ay jaamu yàlla waaye lañ fay lijjanti ci doxiinu àdduna ak luy yéwénal mbiri jullit bi mbokk yi jàkka moomu nag euh, ngir mu taxaw ku ne xam na ne dañ koy taxawal jàkka ngir mu taxaw dañ koy taxawal jàkka mooy barab bi nga xam ne fi la jullit yi di daje di jooxe seeni farata di jooxe seeni jaamu yàlla taxawal ga nag di lu ama am solo ci lislaam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digge ci ak pay waaye digge ci ab yool boo xam ne bu ama am solo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne képp koo xam ne tabax nga jàkka sun borom dana la tabaxal ak kër ci aljanna foog naa lool nag doon na lu am solo loo xam ne jar na képp kuy xëntewoo lu baax nga def sa yitte ci defar jàkk ndax këru aljanna jullit bu ne soxla nga ko lépp lu ab jullit mën a am looloo ko gën ci moom lépp lu la koy may nag foog naa lu mat a yittewoo la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen noonu la ko waxe wax na sax lu gën a yéeme loolu ndax wax na ne man bana masjidan walaw ka mafxasi xataat bana laahu lahu baytan fil janna maanaam koo xam ne nii tabax nga jàkka donte jàkka ji dafa toll ne tàggum përëntaan maanaam tàggum picc ku defar jàkka ju toll noonu ndax loolu waxin la jàkka ju toll noonu amut li am mooy dafa bëgg a wax ne képp koo xam ne nii li nga bokke ci defar jàkka ji toll na ne tàggum picc suñ borom dana la tabaxal kër ci aljanna kon loolu foog naa lu mat a yittewoo la defar jàkka soo ko mënee waa walla nga joxe ca sa barkeelu buy tax danañ jàpp ne lii nga joxe ci jàkka ji ak lu mu néew néew toll na ne ka mafxasi xataa ayuha nnaas إلىكم تسمعون المواعظ وقلوبكم خاشعة وإلىكم ترشدكم إلى الطريق وأبصاركم عنها متعامية وإلىكم نصحبكم في الدنيا وقلوبكم على حبها متوالية وإلىكم ترحبكم في الآخرة وخواتركم عنها مهدة هادئة ليت شهري من الشهيد منا منا ونعنيه بجنة عالية ومن السقي منا فنعصيه من نار عامية ليت سهري أو أحسي هذا يلين قلوبا خاسية فإن من الحجارة لما يتفجر منها عيون جارية فيا من خلبت على قلوبهم الأحمية فكأني بكم وقد أصبحت مناسلكم خالية ونقلكم الموت إلى قبور بالية وأصبحت أولادكم تبكي عليكم بأدمع عامية فاعتبروا بمن مضى قبلكم من القرون الماضية فقد سقتهم المنية سربة خير سافية وها هي ناصلة بكم wallaahu aalamu am musabbihatun am mumaasiya summa taquumuuna min xuburikum bi axdaamin xaafiya wa awraatin baadiya famaa jawaabukum idaa xajabtum bi xujjatin xayri kaafiya wa toodahu salaasilu fi axnaaqikum wa tasxabukum sabaaniya wa tunaadi alaykum almalaikatu haasa jasaau man dayyaa xuquuqa man laa taxfa alayhi xaafiya wattaqullaa xaqa taqwaa fi sirri wal alaaniya alxadiis sakat annaaru ilaa rabbiha fa xaalat yaa rabbi akala bacdi bacdan fa asalli bi nafasayni nafasin fi shitaai wa nafasin fi sayf fa asadu ma tajidoona min alxarri min xarriha wa asadu ma tajidoona min albarri min barriha ko saa boroom ba gën a yàggal te may ko ak wér ba mu àggale ay yéeneem nu ànd ko ak moom ti leen jotali ak cant ci turu sëriñ seex Mbàkke moom mi nga xam ne mooy baram borom barab bii di liggéey fi liggéey bii mu fi tollu liggéeyal ko lislaam liggéeyal ko sëriñ Tubaa nun ñëpp nu maase ci ñaan son boroom yàlla yàggal ko fi lool te may ko ak wér te bàyyi ko kum xelam te àggaleel ko ay naalam ab sag la ci lislaam ak sag ab sag la ci yoonu murit ñi ko xam ñëpp maase nañ see man a seede lool yi kon yal na ko fi sa ba yàggal moom ci boppam itam nee na mi ngi leen di jottil ak cant rawatina kilifa yii nga xam ne ñoo teew ci barab bi te fu mu mas nekk fu ne ñoo ñoom ñoo koy ànd bu dee jàkk bu dee mawlit lu mu mën def ñoom ñoo koy ànd def ca seen ñaq def ca seen doole di ànd ko moom ci pas-pas ak yéene ngir xemem liggéey ba muy liggéeyal lislaam te di ko liggéeyal sëñ Tuubaa ñu bokk ca jëriñu kon ñooñu itam sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax sant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem bokki taalibe yi nga xam ne ñoo jàpp ci liggéey bi itam moom it sëñ bi nee na mi ngi leen di beral seen cantuk bopp ndax saa suñu wootee lu mel ne ab kuulaas wala tabax moo xam ne dafa soxla mbooloo ñu dagg seen yi te indi seen doole ak fu ñu mën a bàyyi ko te te duñ ci soxla lu dul ngërëmal sëñ Tuubaa loolu moom it nee na mi ngi leen di beral seen sant boobu bu baax di sant ñëpp te di xam leen béréb bii dafa bokk ci béréb yi gën a tedd ci kaw suuf ndax boolem béréb yi ne ci kaw suuf yëpp jàkka képp lañ ci askanale yàlla te yàlla mooy boroom lépp kon loolu doy na ko teraanga doy na ko ak tedd doy na ko ak fonkeel kon nag nan ko fonk bu baax ab julit sun borom ba bi mu koy bind di ko ndi ci kaw suuf jaamu yàlla rek tax mu bind ko leneen lu dul moom taxul mu bind ko jaamu yàlla rek wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun te boo liggéey bu dajeek boroomam it jaamu yàlla dong la koy laaj kon nañ ci góorgóorlu bu baax te di ko fonk te di ko def ci waxtu ba te di ko def ci ak laab sëriñ bi loolu mooy kàddu yu nee ne mboolem mi ngi sañ ci sant mboolem bokk yi fi teew waaye yéen ñi nga xam ne nag dañoo da ngeen a jege jumaa ji yéen day warugar ci yéen saa suñu noddee na leen fi fekk teew koo xam ne sa digganteeg jumaa ji matul ñetti ki matul ñeenti kilomètre ajjuma june war na la fay fekk boo amul ngant soo ko deful la mën na la jaa fekk loo xam ne sa borom nga koy digaaleel loolu yàlla na yàlla musal ci loolu yi kon jërëgeen jëf jërëgeen jëf kàddu yooyu la sëñ boo xam ne naa leen ko jot li wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu وجاليز الليل والنهار خير إماما بلا انتهار ليقود من له الأيام ما دونه الخيام والصيام ليقود من له سهور ما دونه الطهور والتطهير ليقود من له سنونا ما قاد بالمفروض والمسنونا هو الكريم النافع المكرم وعبده خير الورى المكرم زبر ذان توجه ليا بقدر الحزيم نعم خليا